Umra 2024 Avec cette agence Mounir Travel offre spéciale du 12 au 24 septembre 2024 Jérôme benn fan Fantiamaka, Médine fan agence Mounir Travel gère leen billet aller retour un visa Umra ca Médine mu dalal hôtel Zahal Munawwara ca Makka mu dalal hôtel Al Kiswa Towers Bon noppi mu restauration en pension complète Manam dik añ reer géré transport Bon noppi boole leen ak oustaz Mohamed Biteye mu nekk guide yor encadrement religieux Lié lii yëpp 1 million 700 francs dongo képp ku ci gën information wooteel ci 77 686 33 33 33 801 98 14 seen agence de voyage Munir Travel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 bok sa yaram taw a ci ma ay de cosmétique la leni yabal yéen ñi nga xamantene nak vergeture daf leena sonal manam ay yaram yu rew entreprise ma ay de cosmétique ñoo ca gaaw waye li ci gëna neex la leen indil mu di lait de corps bi nga xamantene 15 jours nga daal di wex tal les awa diamond bangok mom rek moy les de corps bi lay appal 15 jours nga daal di wex tal maa ko wax jëlal les awa diamond bi fukki fan ak juróom nga daal di wex tal entreprise ma ay de cosmétique am nañu gaamu lèvres rose bo xamantene ne Il la dafa boole les ak lèvre rose maa la ko wax ci trois jours donc say tuñ daa rose ba nga mel ni américaine les décorements et de cosmétiques yaa ngook dafa baax ba noppi amul benn effet secondaire jigéen ñi jaaxle jeex na fi daal woo ñu ci 77 820 40 40 wala ngeen woo ci 77 811 40 40 plus possibilité de livraison à domicile partout au Sénégal et dans le monde tane bu baax waaw maa ngi tane de <laughs> monsieur le prof maa ngi allah. bon en fait maquillage yi ak yi nga doon def yëpp yu ci bëri da koy bàyyi surtout maquillage yi mel ni bàyyi sa bopp comme ni nga mel nii mu ngi naturel yaa ngi rafet macha allah ya. merci hmm, merci beaucoup mais kamu nga dama ya. mau maquillage te dama bëgg affaire sañse yooyu noonu loolu rek moo taxoon mais comme bëggoo ko bëggoo ko. non non non. ok bàyyi naa ko. pose ko ba si kanam a kanam après nga reprendre incha allah dégg nga. waaw merci quoi. <laughs> d' accord ok. bon en fait tey nag dama la indil sa xarit dama la koy jox nag mais à une condition. mais bu ci nekk may wax nu mu D'accord Oui. Ok. D'accord. Oui. Ah. lii tu mm-hmm. la tudd. lan tu nu tu tudd. que tu pourtant Oh, orange. Okay. <laughs> Masha'Allah. Wow. Khadi. Hein? Hmm? Tu as dit Oh, orange. Bravo, Khadi. Masha'Allah, félicitations. Merci, euh, Khadi. Euh, bon, donne-moi les notes. Donne-moi les 2 sur 10. 2 sur 10. C'est 10, ok. Merci beaucoup. Merci. Hmm. Khadi. Masha'Allah. Masha'Allah, ouais. xadi lii moom xam nga ko sa xarit mhm. nan la tudd pom <laughs> ah, bravo Khadi hein? merci beaucoup merci Khadi encore une fois Khadi nan ma pompe. <laughs> bravo bravo bravo merci beaucoup. xanaa ma mayaat la note comme ça nga gën a góorgóorlu. merci bu ko defee léegi nga wér ak jàmm nga dem. félicitations Khady. ah, ah ok d'accord <laughs> félicitations toi. <laughs> merci monsieur le prof Khady waay. d'accord nii la da ngay góorgóorlu boo góorgóorloo rek léegi nga demal sa bopp. incha allah mm-hmm. bon bii rek moo ci des. j'espère que bii moom xam nga ko bu baax. xam naa ne moom ngay gën a lii. Mm-hmm. je pense que xam nga ko bu baax. xa baax kay. xamoo ko. non non yow laa wax nga xaw ko nan la tudd. maanaam. waaw. moo tax yaasa yaasa yaasa yabooy. <laughs> yaasa yabooy. dagg bu gudd bi. lii laa wax lii <laughs> am dagg bu gàtt bi. xam lii laa wax lii. waaw. mais li gën a difficile moom nga wax léegi lii rek moo ci topp te da nga ko bëgg da nga koy lekk tout le temps. xëy ko rek lan la tudd. naa ko wax de. naa ko def. monsieur le prof. Batanse <laughs> xam naa ko de dama ko ngi naan donc ma bëgg a dóor ah. non non. wu normal. baal ma dee. yaa ngi wu bu baax. waaw waaw. yaa nelaw. maa ngi maa ngi dédoo de maa ngi dédoo. jël naan sa garab yi aussi ngay reposé bu baax a baax a baax soo bëggee wér. incha allah. garab tuuti tuuti. بروف دوما خيف دوما ما يبين سما خريب بكري هلا ما يمكم تخرب بنا لك دو با نا نا وليك لن موضع سانك بمين كل حاجة خدي لن موضع كواخ كباي ببو كلك نغوخ تربي بيدخلوه ها؟ Je mu ko rek ngir yàlla. d'accord. non t'inquiète pas. merci merci merci euh, monsieur le prof je ma dugg ci que comme ça m'arrive, ma après moi. euh, merci encore une fois merci merci. franchement xadi jaaxal na ma trop trop saa boo demee ba commencé am courage si xadi rek mu découragé loola aussi dafa mel ni ay famille dañ ko seetaan complètement xadi war na dépassé fii war na dépassé fii monsieur le gynécologue no def. ça va. ma yang ngi jam jàmm. maman psychologue la ñu wax. mooy yow gynécologue yëpp psychologue lépp gynécologue rek daal la noo def eh? yaa ngi ci jàmm. ça va maa ngi sant yàlla ah, bu baax la kay. ça va yow. ma ni ko dëgg la kay. en fait euh, ah. ni ah. ngeen normal. parce que ay garabam da ngeen ko ko war jox sax maman. gis nga xadi mi ma gis. je pense que yéen da ngeen koy daw te gis nga daw ku wéradi da koy gën a yokk jàngoro te yow yaay yaayam bu ko ñëpp doon daw yow da nga war a attaché parce que sa doom la xadi jege ko jox ko ay garabam mu naan ko nga surveiller ko mu reposé wu mën a génn ci lu mu nekk effort bu ñu ci def rek dañ la ci war a fekk si. pare ko doo si la ko bu gàtt laa wax jàngoo jongoo. tuba bi bindon na la faté na la dama né ndax xali euh, feebar bi sarafan cc wala dit wala seva yaa ngi may dég xali day waté ta man sama yaram yi da ko bëgg ba tax na duma ko du wacc xali di ma fërëj fërëj jig di ma birij birijee du ma ko nang xali bañ na ko ba bi dëkk fële daf ma xoj ba sama put gi am cancer ni sama put gi da am cancer ni mëno leen ko fa gis nga li ma ni ay kii la ñu ñu doomi ndaw yooyu mu tudd. non xaw ma li ngay en tout cas de toute façon doomi ndaw yi laa yëg pour soo cancer. li ngay wax li ngay wax yëpp man concerné wu ma. lan mm, moo la gis nga boo sentir cancer. ak mm. feebar ba mën sentir sa yaram. Mm. da ngay dem hôpital ñu consulter la. médecin xool la la dal ñu faj la. man psychologue laa damay faj ñi nga xamante ni seen xel dafa am euh, feebar ñoom lay faj comme genre xale yi euh, comme que yow nag mënoo toppatoo sa doom su jëkkëram ñëwee nekku na remplir garab yi. aussi na toppatoo jabaram jël ay responsabilités ci moom. da ngay wax rek da ngay wax nii. da ngay wax nii da ngay da ngay wax nii demee noonu doo de dama eh, xam laa ko dik. d' accord merci dama ne. Eh. te garab yi na ko remplir bala ma fii ñëwaat. fenkat bi nga doon lii mu fi ba lu ma. Eh, waaye ndaw Samba. pom xool ko gat pom de la fi pom ñaar fukk lii nga xam ne ñaar fukk lay jar boo ko joxoon parental yi sax bëgguñu ko. xoolal li Sourance nga xam ne ci fu ca fu la ko jële kii wóor kii kii est moom laa romb kii su ma kii moom laa romb mbëbës kii mooy eh nag xamoo dara dara xamoo kuti mbow mbow ancien bañaar yi nga doon ancien sukki

ok si lay yëngu affaire de décoration maanaam. non mais mais Ousmane nag franchement gis na taxaw bi quoi wax dëgg yàlla aw ma sa fay. <laughs> parce que depuis keroog bama kay khultu xultu warna changer meuble ah, ndax yi magna na ndekete yow loolu jàpp nga ko ah ba njëkkantoog man def li non wax dëgg yalla nak billahi aw ma sa fay yow mom du ma def lu dul remercier la rek. bayil bala ngay sori jëluma remercier gis nga lii amon na yene def ko amon nga yene def ko mais nak suñ jabar jé ko def dama lay wax deug rek sa soxna fi jaar naroon na ko def nak amon na yene bi ma sis ko doon nañ ci wax lu bari mais sifi ko mu déggu ko rek ne ma jogal légui légui légui ñu dem mais Ousmane arrêtel non arrêtel quoi gis nga nit boo doonee gor gor ngay don ba ba ngay dé mais bo nekkee jam jam bobu tamit ngay déwé té na fi mbay jam bu bon la i nu é eh, amul i ku bon nga ni gis nga lii mu def nii nga foog ne la kan la ko defal famille beeg dafa def lu baax deful dara lu dul ngir mettital yow nag nga ànd ceeg moom waaw dangaa comprendre rek dangaa comprendre mais lii defu ko dara lu dul man man lay bañ a gis pour mettital ma. yow may suñ jàmm nga naan pour mettital ma yow yaa ngi dégg sa bopp yow xoolu ki ñaan kan la la yow lii ni mu naay see nga war a ñëw apprécier nga ñëw fi di wax yi wuy ma génnal si yi nga nekk gis nga Nafi mbay li mu def nii rek la la def. limu wara def ni mom mom la def amoon nga yene def ko man amoon na yene def ko mais mu def ko oui le problème ba ngay nek fi di yuxu di teul teul melni ni yow genn sa yi nga nek gis nga limala la wax ni mu leen ko gis mais lolu mo am gis nga Nafi mbay dafa bon bon bon ba dugg ci galu bon téré ji Bonen bune ni la téré ji kon kooku xam nga ni xol be ñuul mais limala wax la mu nu mënu leen ko gis billahi malheureusement aduna day dox tôt ou tard maskam dina wad ngeen xam kan moy vrai Nafi mbay li ma gën a naq di mooy nga ànd ceeg moom Ousmane wax dëgg yàlla tooñ nga ma. yow Rousseau di wax man lii Nafi Mbaye dafa bon Rousseau di ko wax ana Cisco bi ma doon wax démb sama jabar moo gën si àdduna sama jabar lii sama jabar di ma fattax ay wax masuma la woo dooma doo ma rayax ay waxi Nafi Mbaye dama daan dem ba énervé ndax tellement ay wax ju bari Nafi mbay lii fi mbay lii ah ok te yow yaa taxaw fii naan kii dafa bonax gaalax batoox euh, ñoom seen. da ngeen ko xamul rek. eh li jëntiwuñu ko ñun Nafi Mbaye lim ñu wan rek loolu lañ gis yow bu dee yaa ngi gis leneen yow yaa xam yow soxor nga torop continuer sa yii rek ñàkk nga fayda torop sama xel li may jox fan yi Ousmane mi nii muy réagiré nii kii jusqu'à la preuve du contraire dafa nopp sama jabar faw ma jug ci ay mbiram Nafi naam comme li ma la wax démb bi ma la woowee mhm. gisante wuñ donc dama doon xaar ba nga ñëw mhm. li nga xamante nag moom moo xew sa gannaaw mhm. ndax jeunel bi nga xamante ne jàpp nañu Kenza mu koy paccal ci café xade bi boo ko photo envoyé ko sama médecin. daf ma ne lii poison bu bon a bon la. yematul ci poison bu bon mais poison boo xamante ne du sax pour nit. Ah. mala yi nga xamante ne dem nañ ba seen feebar dépassé leen ñu amee la rage xam ne ku ñu matt dinañ la contaminer et que mën nañ la rey ñoom lañ koy jox ngir mën a gàttal seeni fan ñu dee facilement. Mhm. noonu daal. parce que comme li ma la wax rek ay vocal lañ doon waxante. Mhm. mu expliqué ma léegi déglu. lii kay luy leer moom dara gënu koo leer ndax nee na ci ojo bi nañu sorianteel ki yoroon cellule bi ak malaat mental bi mhm. donc comme bu Kenza demee tey di wujjeek nit ba yàlla def ko mu nekk euh, malaat mental hmm. moom mu bëgg a continuer wujje bi ba nar ko kenn hmm. euh, Kenza moom yabuma ñaari yoon donc danaa leen woo ñoom ñi ko seqoon danaa wax ak ñoom kenn hmm. Kenza bu fekkee moom moo def lii dinaa ko nëbb jant bi parce que duma xaar muy rey xadi après ñu na fi mbay mo ñibisi bi mu ñibisé genre li am fi fii am na fee. Mhm. loolu laay daw te du ko nangu osé. Hmm. duma ko def di joy duma ko def di ré deug deug voilà ndax Kenza mom yaakar na ne fit mënu a dépasser li. Hmm. ta mbala neub jant googu sax di am nañ ko gëna a ba xam mom ban capacité ak ban soxor mo nekk ci mom bam am fitu am xolu xol ko xamanteni ni ya tàqali ko xelam mu ñime ko def li sama yaay jere non ma wax lu melni, neena sama mam Penda sek dafa amone ñaari wujju awo ba de ñaarel ba dem ndugi ji marché andak xaritam. ñew ba timiru armer dafa gat, romb rek sirati ci patu neena xarit bu ne ko way yow lan mo xew fi li ngay def ni pour lan la. Muneko kita ko ki tëdd fi lay waxal de kan la mu ko sama wujju fi ni ma sonale won fi la tëdd donc ni da ngay wujjeeg mom ba du ba mu dugg biir mm. ker terewul nga continuer way du ci ker gi lay amé bayima ma tak ni man maa ko ñaan may ma lool rek baxna gamu 2024 agence Mounir Travel offre spéciale du 12 au 24 septembre 2024 juróom Ben fan Jérôme Médine juróomi fan agence Mounir Travel gérer l'entrée billet aller retour Sen visa umra ca Médine mu dalal hôtel Zahal Munawara, Jamaka Makka mu hôtel Al Kiswa Bonopi Bon noppi restauration en pension complète Manam Diki anirer, gérer transport Bonopi noppi boole oustaz Mohamed Biteye mu nekk seen guide encadrement religieux un million sept cent mille francs dongo est ku ci gën bëgg information wooteel ci 77 686 33 33 wala 33 801 98 14 une agence de voyage Munir Travel dara gënu ko wóor. aussi sama téléphone mu ngi sonné toute la journée té xawma pas lan mo xew Kenza xawma xam nga li xew xawma xamuloko. mais Kenza dama bëgg nga xam ni. man teguma la fi pour di la protéger wala ma lay nëbbal quoi que ce soit jolil bi nga doon dugal nag ci kafe xadi ba di ko fa paccal damaa bëgg heure boo gisee na fi mbay nga wax ko jolil boobu pour lan lax man mii dama ko jaawale Souadou moo la ko wax yàlla xam na ne ku ma tegaloon kaamil ba fëgg ci sama loxo ne dama koo jiwaan la te Souadou man à la xaw ma lan la ma bëggal te problème bi ma nekk fan yii rek dafa métti bu ma ci yokkalee leneen fan laa jëm waaw te da ya, Joy. jooy xam nga la la bëgg xamal Joy de fajul dara Lima bëgg moy bo jàkkaarloo ak na fi mbay wax ko gelul bi pour lan la Ya ngi may lolu moy sa di sa ci kër gi Deugër nga fit Kenza Kenza Baxna. Lolu dong nak la amul luma lay conseil Bo gisé ak mom wax ko deug bi Souado damaa bëgg nga wax ma li may wax ni nag ñor na ma trop damaa bëgg nga wax ma ndax réellement dangaa gis kenn saa muy def gelul bi ci kafe xadi bi. déedéet Souado amul seetat li ma lay wax c'est très important na fi may gi nii woote na réunion fas yéene ñoo taaj ñun ñëpp nag ci salle bi pour xool ba xam ndax dëgg la wala du dëgg. Souado amul seetat dama lay wax bu dee dëgg la nga wax ma. soit du man gor laa te bugguma ku ma taaj ci biir nit wala ku may wax yenn yi bugguma ku ma ñàkkee kersa de. Osé tooñ nga ma trop tooñ nga ma de parce que lii ba ma la koy wax dama bëggoon mu yem sama diggante man ak yow nga xool yow naka nga koy réglé ba Nafi Mbaye du ko yëg yow nga yaakaar ni nga def ni mooy réglé situation bi. da koy gën a yokk nag moo koy regle ndax am na loo xamante ne buy raam rek ci ñag bi la jëm te bu fa àggee am fa kër du ma seetaan na kër gi moomu ko moomaanu ma néewuma ñaata dañ ma fee teg juste pour may superviser te kon fas ma dara xew fi wala mu gis danger boo xamante ne mu ngi ñëw ci kër gi ma koy noppiwaale du ma ko def du ma ko def te lenn xamal naa la ko gis nga bu dee du dëgg bi boo nga teel koo wax gis nga Osé tooñ nga ma laa la wax te dama la koy répété waatal ku ma tooñ nga lii ba ma la koy wax dama bëggoon mu yem sama diggante man ak yow parce que li ngay def nii xamoo fan lay teeri man ak yow ma wul neubal na fi may dara lepp lo xamantene danger la ci bir keur gi dina ko ko wax te lolu xolal dama bëgg nga duggal ko ci bop de buguma problème ak mom gis nga relation kenn du ko mélanger togn dama nak wa nabu mhm. man ma la wo sank ne la nga ñew

parce moom moo wax ak Osé Osé ñëw waxaat ak man donc kon soit bëggoon nañoo xam rek lan moo xew sa diggante Kenza yow ak xaj lan moo ci am. lan moo ci am comme lan. soit bul ma fontoo li nga wax Osé xam nga ka xam naa ka jarul ñu di ci ñëwaat tunga ni lu teew ñuy nataal te bu fekkee dëgg rek moom moo ko yëkkati woon. mënoon na taxaw teewee mën a xam lan moo xew dëgg li ngay wax mais comme yéen a ngi nii yéen ñaar yéen a seq kaa bi donc vous avez la parole lan moo xew. <laughs> ok Nafi problème bi lenn kese la kenn saa ngi nii toog dama ko fekk ci waañ bi mu ne day defaral xadi ndékki. Mhm. ma fekk mu yor comprimé bu ko def ci ndékki xadi bi ma laaj ko kenn saa lan nga yor ci sa loxo nanguwu ko wax. ma insisté ba sonn lan nga yor nanguwul wax ma fel loxo bi fekk benn comprimé mu yor ko ci laa woo osé nag expliqué ko jox ko ko cas bi noonu la demee yéen ñaar nekk ku nekk li nga def danga kaa war a assumer di ko wax osé nag yebul kenn ñun la yab parce que mënul wax li muy wax ba pare ne fiw dem yoonam man fay biram de lépp loo xamante ne wax naa ko dama koy assumer teg ci sama loxo te xam ne man maa ko wax ku nekk di ko paas sa moroom yéen la ñuy déglu. Euh, soo bëggee de ma jàpp ba set. dóor ci sama loxo que ne defuma loolu dafa fekk ni rek dama noonu juwaat li mais jël ma benn intention ni que damay rey xadi. yow yaa mën fen. silence. eh. doo wax dëgg ki dafa mën fen waa yow. Souadou yow depuis nga mel nii et man ma toog mag la nagu fay toog mag la ma mag nagu fay yéen ci jotaay bi ñëpp maa mag nga yow taxaw sama kanam bi saaga. na fi maa ngi ciy erreur dafa gawa dal nit da na ngay moytu bu baax bo nekké ko xamni sa wujju la won wala mus ngeena am ay problème ba feebaru xel dab ko gis nga dof du ko yenuy sagaram de ki def ta du calculer ko koy dof ki yenuy sagaram kooku febar la am Dang koy faj mënon nga jël comprimé bi nga jëm ko lire xol ba pare bala juwat le comprimé mon bi muy naan ak bo xam dang ko former rek par hasard jàpp ni garabam la donc tay bu dee woon lan ngay expliquer après lan ngay wax kan mo lay layal ban justice moy taxaw ni djelo won intention pour rey ka donc li bu mu la dalati comprendre naa nag bu baax li ngay wax parce que djum ko nek la mana dal mais arrêtez les détails s'il te plaît ngir yalla arrêté leen na fi kii juumul moo ko tay yow eh, xamoo kii eh, kii bandi eh, la yéen dèjà nit ñaa ngi wax pareeguñu yéen ñaar ngeen nekk fi ku nekk dikk sa baat yéen ñaar lan mooy seen problème fan yi ku nekk day jox njaay joxal jóob yéen lan lan mooy seen ba tax na ku nekk di xuloo soit bi man ma sa wujj bu may ñëw ci kër gi xadi laa fekk est yaa ngi may dégg. hey taisez-vous léegi bëgg ëppal nag. yen ku len may ben ngeen jël fukku de yéen ñu len di yërëm ngeen aw lu téere cat ku ñuy neub ci rondal di nga génn tan ku ne di jaay ciokku yu gudd lan moy seen problème e bu len ma e eh, xol e eh, bu len ma fonto de ñong len di wo ci waxtaan di leen ratifié waat ngir ngeen mëna xam kenn ku nekk fan ngeen tek seen tan ay xalé tuddi ngeen tok suñu kanam di wan tuuti bu amate di ngeen gis sama yaramu neen de tamane bu ngeen gisee sama yaramu neen xam ngeen di ngeen gis yaram bu bari lan la lan ngeen ñu ëppale yow soit du ngay jaay bëti rëy rek ma gën a rëy bët Kenza yow moom ñaari baat ñett ngay jaay man maa gën a wow ci kër na dakk tay bu ma ko fi déggati leer na seen bopp yi yabaate ngeen trop waay. ma ci maa ngi jéggalu parce li xew nii tay gënalu ti doo loo xamante ne bëgg naa ko maa ngi jéggalu bu baax a baax prochaine fois dinaa xool lu may def. maa ngi jéggalu daal ngeen bañ kaa def moo gën. fekk suwaadu. Semua dong. Oh, hindi sen. Semua dong. Kan sebut dulu. tulundong? Kung mau mo kan, mau komit. <laughs> Yo, yo, nih gak dofe. Eh. Yo, yo, tau gak dof. Yo, malah segera girlfriend. Eh. Mala malah magbugor gur-gur na kan, bi. malah kadi, <laughs> kadi kadi, kadi ka kalat. Hindi sen. Iwe eh, ka di ni. Wow. baru pa Osman bi. Wow. Hmm. Yo, Yuk, oh, dia baru pa Osman bi kay. Cuman <laughs> dewa. Wow. You wear nggak? Hai. <laughs> Bukan, dia baru padelnya Abi. Oh, <laughs> padel. Padel wow, padel. Padel. <laughs> Padel wow. eh, Yofan iya, nggak jawab? Apa jawab? Hmm, man kila seti. Ya kan? Kadi sama Jabar Bawon. Kadi. Kadi. Kadi, kamu fala dek ya? Kamu lewur kamu kok. Hola. Uh, eh, bo ni. Ni? Eni hmm? <laughs> nga jadi premier angle hmm? eh, Nggak jadi deuxième deuxième deuxième nga jadi deuxième Wah nga dem bay waaj jadi deuxième xoolal booy quatrième kan quarantième kër boobu noonu ah baca ca vingtième barek mau foofu la dëkk aja lagal lagal <laughs> lagal lagal lagal ciao. caaw dama Ciao ciao. Ciao ciao. dama wér na ชีวิต